ñañu jàpp li ma ciy mettit lu mooy li leen brutaliser parce que un député c'est un représentant du peuple Mamadou Diop Decroix jàpp nañ ko Omar Sarr jàpp nañ ko ñoom Maymouna Bousso jàpp nañ ko ak ñeneen Thierno Alassane Sall jàpp nañ ko mais ñooñu c'est des dignes fils du pays même bu ñu leen di arrêté waruñu leen brutaliser am na benn égard républicain bu ñu war a am ci ñoom am na benn élégance républicain bu ñu waroon manifester ci ñoom mais nous sommes dans un régime haineux animosité euh, euh, euh, nooteel ci buumu buumu njaam lañ ñu bëgg a teg te loolu mënut a nekk Sénégal léegi dañuy woo euh, euh, Sénégal yëpp bés bu ne semaine bu ne danañu dellu ci mbedd mi pour askan bi jëlaat baatam parce que du yoon ñu jëmale ñu par force ci élection yoo xam ni dañu koy taayal sur mesure euh, constitution bi ñu taaye ko sur mesure dugal parrainage code électoral bi ñu taaye ko dugal article L57 tout candidat électeur ba noppi tënk ñaari adver ñaari candidat yi ëpp dayoo ci prison loolu mooy ñan na ma voteel xalifa sàll ak ñu am sympathie ci moom yëpp kenn du ko ci votel ñu nam ma votel Karim Wade am sympathie ci moom yëpp kenn du ko votel waaw ñaari électorat yooyu boo leen boo leen lan la ci fichier électoral bi ñeneen ñi nga xam ni tënkuñu leen ci yoon ñu bëgg leen jàllale ci seggukaay bu ñu tudd parrainage loolu la ñuy jooytu tey parrainage bi ànduñu ci chaos électoral lay installé ni ñu retenir carte dante primo inscrits yi jeunes yi ànduñu ci parce que loolu loolu fraude préélectorale la Euh, nañu nañu assuré ni les les les les militants de l'APR ñoom dañu jot par contre seen carte d'identité loolu loolu jàng la ci wàllu système électoral ba noppi nag jël ay dispositifs euh, juridiques teg seeni nit euh, cour d'appel Demba Kandji muy proclamer résultat provisoire Pape Omar Sakho conseil constitutionnel mu war a proclamer résultat définitif accepter recevabilité candidature yi ak parrainage yi te kooku ñooñu ñëpp dañ leen yokkal. Euh, euh, trois ans ci seen âge de bi nga xam ne soixante cinq ans la waroon doon te magistrat yi sax ànduñu ci loolu musul am Sénégal donc fi mu nekk nii ñun gëmuñu nii dañu jëm ci élection yu jaar yoon li ñu gëm mooy taxaw ñàkkante kook ñoom yéen a gis alkaati yaa ngi nii ñu ngi sama gannaaw mais li ñu am pour wax dañu koy wax luñ ci fekk mu fekk ñu ci dëkk bi ñoo ko moom parce que la souveraineté reste au peuple et appartient au peuple salaamaaleykum wa